asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi dañuy dellusi rek leen dalal si seen chaîne bii di Bantal TV tey nag mooy suñu deuxième dar si suñu téere bi ñuy naan Nuurul Bayaan dar ba njëkk ba ñu jotoon a gis li nga xam ne mooy xuruful mooy xarafu ijji nag ñu fas yéene tàmbale li nga xam ne mooy maska yi alxarakaatu bu njëkk ba ñuy jot a jàng tey mooy xarakatul fatxi mooy xaraka maska fata mooy bii di nekk ci kaw bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin wassalaatu wassalaamu ala wa ala kon lii mooy suñu ñaareelu dar si téere bi ñi naan nurul bayaan jot nañu jàng ci darsu bu njëkk bi xuruful xija mooy arafu ijji yi te nag ñu fas yéene tàmbali li nga xam ni mooy euh, alxarakaat mooy maska yi euh, maska nag ñeent lañ tey dañuy jàng bi nga xam ni mooy xarakatul fatxi mooy maska bii di féete ci kaw kom ni ngeen ko gisee ci kaw alif bi nii mooy xarakatul fatxi mooy bi féete ci kaw am na tamit bii féete ci suuf mais ñun bii féete ci kaw rekk lañuy jàng tey bu soobee yàlla mooy bii nii ngeen gis nii tàlli bii nii mooy tàlli bii ngeen gis ci kaw dafa tàlleeku daa am ñaari tàlleeku benn bi ci kaw lay nekk benn bi ci suuf te nag bi nekk ci kaw lañuy jàng tàlli ci kaw bi tàlli nekk ci kaw boobu lañuy jàng bu leen ko jaawaleeg bu nekk ci suuf bu nekk ci kaw bi rek lañuy jàng te bu fekkente ne jot ngeen a jàng dars bee weesu ba euh, seetantal ko yaakaar naa lii dina yomb ci yéen bu soowee yàlla léegi euh, dañuy commencer rek fii jàngoon nañ alif ci xuruful hija dañoo jàngoon alif baa taa jiim léegi nag kon ko fatxa bi ñëw na day changé nuñ koy jànge léegi lan lañ njëkkoon a jàng alif ñu maas ko fatxa mu nekk a fii ñu jàngoon ko baa ñu déw maas ko fatxa mu nekk ba bii ñu jàngoon ko taa léegi ñu ñëw ñu maas ko fatxa mu nekk ta comme ni ngeen gisee yii ni toppaloo nii yii nekk ci suuf yii nekk ci suuf ni ñuy jàngee bu njëkk bi rek noonu lañ koy jànge bii nii day nekk ci njëlbenn bi moo ci commencement bi bii nekk ci digg bi bii nekk ci mujj gi walla du nekk ci mujj gi des fois bii day nekk ci commencement leetre bi bu fekkee dañu ko bind ci benn kalima mooy commencé bii nekk ci digg bi bii nekk ci jeexetal bi mooy nekk ci fin bi bii tam ci commencement bi lay nekk bii ci fin bi bii tam ci fin bi bii tamit mën naa bañ ñu nekk ci fin bi tam lay nekk kon ñu continuer dañoo jàngoon saa ñu maas ko fatha mu nekk sa ñu am fii thalaja ñu maas jàngoon fii jiim ñu maas ko fatha mu nekk ja ñu am fi jamal ñu jàngoon lii xaa ñu maas ko fatha mu nekk xa xamaama yaakaar na lii yomb na bu fekkee lu jàlloon ci ginnaaw jot nañ ka jàng ba mu mokk comme ni ma ko waxee yooyu bu mokkee yii di ñëw dina yomb fii ñu jàngoon ko xaa ñu maas ko fatxa mu nekk xa ñu am fi xaruuf fii ñu jàngoon ko daal ñu maas ko fatxa mu nekk da ñu am fi daaira fi ñu jàngoon ko zaal ñu mas ko fatxa mu nekk za ñu am zayil yiñ jot a jàng nii ci kaw fii moo nekkaat nii dangeen koy xoolaat yooyu xam naa jaru ñu ciy jaaraat ñu continuer ñu jàngoon bi raa ñu mas ko fatxa mu nekk ra ñu am fii raxiif ñu jàngoon bi zaay ñu mas ko fatxa mu nekk za ñu am fi zarafa fii ñu masoon ko ñu jàngoon ko kay siin fatxa mu nekk sa ñu am samaka shiin fatxa mu nekk sha ñu am shamaa fii ñu maasoon ko sood ñu jàngoon ko sood ñu maas ko fatha mu nekk so ñu am saaruux biitam ñu jàngoon ko dood ñu maas ko fatha mu nekk do ñu am fii daabit bi itam euh, ñu jàngoon ko too ñu maas ko fatxa mu nekk to ñu am fii taaira ñu jàngoon bi zoo ñu maas ko fatxa mu nekk zo mu nekk zorf bi ñu jàngoon ko ayn waaye bañ ko maasee fatxa léegi a lañ koy jàng mu nekk alam bii ñu jàngoon ko ci kaw rayin ñu maas ko fatxa mu nekk ra ñu am xasaala bii ñu jàngoon ko faa ñu maas ko fatxa mu nekk fa ñu am farasha qoof fatxa qo qalam kaaf fatxa ka kaaba laam fatxa la laymuun miim fatxa ma mawz nuun fatxa na naxla haa fatxa ha haram waaw fatxa wa warda yaa fatha ya yadd kon lu jot a gis ci kaw fii rek moo nekkaat ci suuf fii xam naa dangeen koy xool bu baax benn la loo tax jaruñu ci jaaraat di ko bamtuwaat lii nag mooy luñ jota jàng ci kaw lii dañ kaa dajale fii ñu bind ko benn benn parce que fee dafa àndoon ak ay dessin fii nag moo gën a leer fii Euh, daanaka dara changé rek li ñëwoon ci kaw fee rek mooy ñaar suuf boo leen ko xoolee bu baax di ko ràññee xanaa lu ci changé rek daanaka lii nii la moo ci li nga xam ne jot na see mën a jaaraat mooy hamza fatha a moo nekkaat nii a lii waaw rek la woon ñu teg ci hamza ak fatha mu nekk a kon ko hamza bi ak fatha bi a lañ koy jànge moo tax buñ ko tegee ci waaw a lañ koy jànge buñ ko tegee ci kaw ya a lañ koy jànge gis ngeen lii ya lañ ko jàngoon ñu teg ci hamza fatha mu nekk a fii tamit ya ya ya ya bi day am lu muy jokkale day am lu koy jiitu bi moom kese lañuy bind bii nag bi bii moom ci alquran kese lay ñëw bu ñuy bind arab duñ ko bind bind arab ak bind alxuraan dafa uute tuuti waaye bii ci bind alxuraan bi kese lay ñëw bii moo ñëw ci bindum arab de bii nag da ñëwaale si bindum alxuraan mais bii ci alxuraan kese lay ñëw du ñëw ci bindum arab kon euh, lii mooy nekk suñu ñaareelu dar kon xam naa dañuy yem fii rek ba beneen ñu après ñu àggali bala en attendant yéen da jàng lii ngeen xoolaat ko bu baax ngeen ràññee ko ngeen settantal ko masque bu nekkee ci kaw te mu tàlli rek mooy boo mooy bii ni ñu tuddee fatxa kon jàng leen ko bu baax ndax yii di ñëw rek gën a yombaat ci yéen incha allah gis ngeen fii comme niñ leen ko waxee rek boo leen jàngee yi nekk darsu bu njëkk bu njëkkoon a joxe bu fekkee maanaam jàng ngeen ko ba mu mokk kon bu ñëwee ci bii fatxa rek lañuy jàng mooy masque bii rek rek rek lañuy jàng day fekk xaraf yëpp dèjà nga xam ko kon kon mbokk yi ni ngeen ko gisee lii mooy suñu deuxième dars ñu jàng ci li nga xam ne mooy xarakatul fathi kon da ngeen di jël seen téere yi ngeen boole ka xuruful xija ngeen xool ko ngeen ràññee ko mooy bii féete ci kaw masque bii féete ci kaw boo leen ko gisee rek ngeen xam ni boobu mooy xarakatul fathi ak bu nekkee ci benn araf nuñ koy jàngee xam naa da ngeen di jël seen téere yi ngeen xool ko ngeen bàyyi ci xel bëri na ci téere bi torop mais dangeen ngeen koy jàngee ndànk-ndànk xam naa fii la ñuy yem ba beneen incha allah